كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الذي له ملك السماوات والأرض الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم أحمده حمدا يليق بجلاله وكماله وحمدا كما حمد نفسه وحمدا كما حمده الشاكرون والمؤمنون والصالحون والأنبياء حمدا لا ينتهي مع تداول الزمان حمدا إلى يوم اللقاء حمدا دائما سرمدا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 مع شدة الزمن وقلة المؤونة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين ورضي الله عن شيخنا وحبنا أبي العباس أحمد التجاني الذي به نتوصل إلى الله سبحانه وتعالى وبه واسطة بيننا وبين ربنا ورضي الله عن شيخنا أبي إسحاق مولانا الشيخ إبراهيم يسر رضي الله عنه الذي أفاض إلينا بفيضه وأسقانا كؤوسا نرتوي بها إلى يوم القيامة يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر أما بعد بوكي جلدي بوكي تالبي نيني نيب دي زيادة نيب دي واتشي كنيك أقوى شوية دليني نيالي يلا أه جمو أخيوال أغناتانجي أك سخقم يلا ak dund gu doy te ànd ak topp yàlla deegu rafet te sedd ba dajeg yàlla ñu dajaale ko ak ngëm yàlla waaye di liggéeyal diine yàlla ji di e, topp si ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme nu ñu ko ñaanalee noonu ñu ngi sàkku si yéen tamit ngeen ñaanal ngeen ñaanal ñu ko rus naa delloo ñaanal jullit koo xam ne dafay ñaanal mbokkam doomi aadama am na si doomi aadama yi nga xam ne nga tàllal leen loxo ñaan leen rek tañ am ko rus naña rus nañ laa delloo sa ñaan il faut ñu may la seen kersa doo ko dañ te yàlla ëpp kersa képp ki am kersa yàlla gën a baax képp képp ku baax doomi aadama danga ko ñaan amul ko sax mu rus laa wax ne la ooma oh si baaxam mu dem uti ba am ñëw jox la yàlla nag moom ñàkkut ku koomal la magasin mi di jeex dégg nga eh, lahu xazainu samawati wal ardi te moo gën a baax moo gën a tabe moo dàq joxe kon nag nit su ñaanalee mbokkam nit eh, mbokkam julitam talal loxo yalla diko ko ñaanal yalla rusna delo ñaan gogu noonu bu charte ñaan yi dajé kon nak ñu leen ñaanal yalla di sakku si yéen ñaan euh, tay nak ñi ngi ñew ak yeen si benn qasida bi nga xam euh ñun ñoko bindoon si haqi gor gi nga xam hmm wuy dina boromam دي العالم دي العلامة الدراكة الذائق الفقيه المتصوف الكبير المجاهد في سبيل الله المربي الكامل الواعظ الحكيم دي الأستاذ محمد آه ولا الأستاذ أحمد به nga génn na àddina depuis barke démb xasida bi ñu ngi ko woy le neuf si juróom-ñetteelu weer bi si 2023 di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun parce que yàlla moo wax ne wa bashiri sabirina alladina إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا الله دفع واخ يونت بينكو ديغالال نيغا خامني داني موج موي موج كاني نين نيو نيونو موي نيغا خامني سولين مصيبه دالي دون ديف دارا dañ naan ne ñun si yàlla lañ jugee te si yàlla lañuy ñuy dellu wax jooju nag wax ju rëy la lu tax ma ne wax ju rëy la parce que aadama soo amoon saw xarit wala nga am sab doom wala nga am sa walangga wala nga am sa baay wala nga am sa yaay wala nga am saw soxna mu jugee fii war dem armée sa guerre ba mu leer na mi ngi dajeeg ay soldar yi nga xamne manki lidi wuñ dara lidi di bombe automatique li di bombe bu sanni li di pistolet li di ay auto guerre lepp ñu ko yor te mi ngi wara a jàkkaarloog te yow koku yang ko bëgg sa xol bi da nga ci trop si nga ragal mu ku si am saw xarit mu leer na la mi ngi dem rebeus wala beneen koso bu mënta doon mu leer na la koso googu tëdduwaay ba baaxut lekk ga baaxut naan ga baaxut dara baaxut fa jikko yo baaxut fa dañ fay laate soo ko bëggee da nga tiit waaye ku si am sa xarit wala sa doom wala sa wëllëre mu war a dem dajeeg ab buur buur boo xam ne gëm yàlla la fees dell buur boo xam ne euh, mbaax la fees dell buur boo xam ne xol ba dara ki ñaan nekkul fa buur boo xam ne manqué dara buur boo xam ne buggut lu du taral doomu aadama te soo ñëwee dara du fa mit sa doom wala sa soxna wala sa euh, sa doom wala sa xarit wala sa wëlëre wala sa ndey wala sa baay war a dem dajee buur boobu noonu doo tiit si nekkam ak buur boobu noonu parce que xam nga ne du jëlee si buur ba lu du rafet len rek ngay méttallu mooy lum nekkoon ak yow daal di taxale kook yow yàlla nag mi ngi bëgg a xamal si aaya boobu noonu ne la wa bashiri sabirina alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñi nga xam ne su leen musiba dalee dañ naan ñun si yàlla lañ jógee te si yàlla la ñuy dellu yàlla mi ngi bëgg a xamal si aaya boobu na leen kii nga xam ne mi ngi nekkoon ak yéen mi ngi wuy si buur boo xam ne amul lu dul taraanga amul lu dul teralaate amut lu dul mbaax waaye amut lu dul kóllëre amul lu dul dégg nga euh, teral doomi aadama tey nit kooku noonu si man la ñëw man yàlla kon yéen bu nekkee nekkam la ak man waru leen saa tiit parce que xam ngeen ne maa maa gën a baax képp kii baax waaye nag may naa leen ngeen métitlu si leen lan noonu mooy lum mu nekkoon ak yéen ba pare daal di teqalikoon ak yéen te xam ngeen ne ku amoon njëriñ la si yéen mu paase foofu na leen bal sax su ngeen demee ba mun munta ñàkk tiit maanaam su ngeen demee ba mënu leen a ñàkk jooy wala mënu leen a ñàkk métitlu dégg nga ngeen métitlu si taxalikoo gum taxalikoo yéen waaye nag nekk gu muy nekk ak man war waru leen sa tiit waaye nag ñi nga xam ne yegg nañ fa yàlla dëgg ñoom duñ tiit si kii taqalikoo gum taqalikoo ak ñoom waaye duñ tiit si nekk ak gu muy nekk ak yàlla parce que xam nañ ne su demee fa yàlla yàlla dana ko teral waaye xam na ne nekk bu mu nekkoon fii si addina bi dem fa yàlla moo ko gën parce que addina bi nga xam ne la mooy yàlla yi si la fees dell waaye rambaaj gi si la fees dell seytaane si la fees dell te yàlla moom lu sell rek fa nekk kon tey si jugee fii nii dem fa yàlla dégg nga loolu dëgg dëgg dëgg nekkul naqar dégg nga naka noonu tamit fa mu leen féetee woon ñoom bañ xoolee yàlla xam nañ ne yàlla moo mën na leen a féetee foofu noonu moo tax ñoom duñ tiit kon ñi nga xam ne dañoo yegg ci daraja al islam wala iman ñom su nit gaño duñ ci si nek gumi nek ak yalla way si len rek nek ñu moy nek gum gu nak ñom xey dem bay len fi way nak ñi nga xam yegg nañ si daraja al ihsan te moy al arifuna ñom duñ tiit si len duñ tiit si dem gu dem dem gii euh, aji dem ji di dem fa yalla nekk gum nekkan ak ñoom parce que xam nañ ne su demee yàlla dana ko taral te fa mu leen féetee woon yàlla dana leen féetee foofu noonu kanaa ñoom dañuy topp ndigal rek di roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom kii xam moo la gën a xam kii tedd moo la gën a tedd kii baax moo la gën a baax kii topp yàlla moo la gën a mën a topp yàlla te moom euh, méttalu na lii di deewu euh, bayt xam di Hamza ak yeneen i deewu jullit moo tax dañ koy roy si lu rek waaye duñ si def li nga xam ne yàlla sib na ko kon leen rek la ñuy def mooy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun comme nu ko yàlla digle si alquran di wax ne ku màgg dem na waaye ponkal si ponkali lislaam yi dem na ponkal si ponkali tariqa bi dem na ponkal si ponkali faydu bi dem na koo xam ne safir la woon si lislaam koo xam ne muslix la woon waaid koo xam ne mujahid la woon dem na koo xam ne yàlla wax na si xaqam ne wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen te la shakka ne Oustaz Ahmed ku ragaloon yàlla la waaye ku xamoon la ku xamoon boromam la waaye ku amoon xam-xam la ñaar yooyu mu dajale wan na ne ku ragal yàlla la parce que su ragalutoon yàlla lu am nii sa xam-xam si cër bi du ko fa am parce que yàlla dafa dafa teg charte mooy su ngeen ragalee yàlla yàlla xamal leen moom nag ginnaaw bam ragalee yàlla la ko yàlla jox lii koo xam ne xakim la woon ba yàlla wax si xaqam ne yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira yàlla mooy jox xam yàlla mooy jox xikma ku ko neex te képp ki nga xam ne yàlla jox na la xikma yàlla jox na la yiw bu rëy ñun mën nañoo seede ne Oustaz Ahmed ku amul xikma la parce que soo digloo waxam rek xam ne xakim mi ngi nii xakim bu fees dell mi ngi nii di wax kon bokk na si coobare yàlla gi nga xam ne yàlla tànn na leen jox leen xikma koo xam ne yàlla wax na si xaqam ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يلا سيدنا موم مو في نيك موي يلا كين دو موم ملائكي سيدنا نكو بروم خم خم سيدنا نكو تسي بروم خم خم يويو سيلا أستاذ أحمد بوكون كو خم ني يننت بي سي حق العلماء ورثة الأنبياء فسكا ينتبه صلى الله عليه وسلم مو وحنا وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العل... إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ينتبه صلى الله عليه وسلم من هنا ngene lu borom xam xam si jaamako ci yalla ko xamne amul بنوم xam borom xam xam bi num gëné jaamako ci yalla bi moy borom xam nu mu gënee jaamukati yàlla bi nga xam ne mi ngi jaamu yàlla waaye amul xam-xam mi ngi na nu euh, weer bi gënee mboolem biddiw yi parce que weer bi leer na bidi yi leer nañ waaye su guddi jotee ñun si weer bi la ñuy gën a teg bët parce que moo gën a leer borom xam-xam tamit ku am leer la leeru jaamu am ak leeru xam-xamam jullit bi tamit bi jaamu yàlla ku am leer la waaye moom leeru jaamu yàlla rek la am. te ku dajalee leeru jaamu yàlla ak leeru xam-xam yaa leer ki nga xam ne leeru jaamu yàlla rek la yor mu waxaat ne innal ulamaa warasatul anbiyaa ba xadis bi jeex nee na borom xam-xam yi ñoo donn yonent yi te yonent yi donnuñ leen si e, maanaam donnuloowuñ borom xam-xam yi kaalis maanaam dinaar wala wurus dégg nga alal wala wurus wala kaalis waaye nag ñi ngi donnaloo borom xam-xam yi xam-xam borom xam-xam yi jëleewuñ si yonent yi xaalis wala alal déedéet waaye nag ñi ngi jëlee si yonent yi xam-xam loolu moo tax ñu doon leen képp ku jël si xam-xam boobu noonu jël na si cër bu rëy ñun nag ñi ngi seede ne kon Oustaz Ahmed bokkoon na si ñoo ñi nga xam ne doon xoon nañ ti yi si ñaari côté doon xoon nañ ti bi si xam-xamu sharia parce que ku amoon xam-xamu sharia la bahrun zaxirun dégg bi mawjihi euh, dégg nga waaye nag ku ku doonoon yonent yi la si xikma ndax xikmaam ba su waxee nga xam ko waaye nag ponkal dem na ponkal mi nga xam ne yàlla wax na si xaqam ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulamaawu yàlla ne borom xam-xam yi rek ñoo mën a ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla gaa ku borom xam-xam danga ragal yàlla waaye doomu aadama mën ngaa ragal nit te xamoo ko waaye nag soo ko xamee xam sañ-sañam xam kàttanam xam dooleem nga ko gën a mën a ragal yàlla nag borom xam-xam yi nga xam ne xam nañ ko dëgg dëgg dëgg xam xam jalaalam xam jamaalam ñoo xam dëgg dëgg nuñ koy ragalee te oustaz Ahmed bokkoon na si ñooñu wuteeg ñi nga xam ne ragal nañ yàlla ni rek mais xamuñ ko yàlla nag nee borom xam-xam yi dëgg-dëgg ñoo mën a ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla te Oustaz Ahmed seede nañ ne si borom xam-xam yooyu la bokk ponkal dem na ponkal mi nga xam ne yàlla wax na si xaqam ne laa yastawi alladina yaalamuna walladina laa yaalamuna mooy ñi nga xam ne xam nañ ak ñi nga xam ne xamuñ duñ yem mukk daraja fa yàlla kon nag Oustaz Ahmed seede nañ ne borom xam-xam la woon kon bari nañ ñum raw nga xam ne seen daraja ak moom am yemuñ fa yàlla parce que moom borom xam-xam la ponkal dem na ponkal mi nga xam ne yàlla wax na si xaqam ne yarfaillahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ne yàlla ne yéen jullit ñi dinaa leen yëkkatil seen daraja ci si si man waaye nag ñi nga xam ne am nañ xam-xam seen daraja dinaa ko gën a yëkkatewaat si kaw jullit ñi te ñi ngi sédina Oustaz Ahmed ci borom xam-xam yoyu la bokku waye nak borom xam-xam bu reuy dem na ponkal dem na ponkal mi nga xam ne yàlla wax na si xaqam ne wala bokk yonent bi wax na si xaqam ne ida maata alim talama fi al-islam zulmatun la yasudduha shay'un ila yawm al-qiyamati na borom xam-xam su dé l'islam amna ab damm damm bi nga xam ne dara mënu ka fatt ba bis penc dégg nga ñu ngi seede ne Oustaz Ahmed si borom xam-xam yooyu la bokk gaa ñoom génn àddinaam damu damu la bu rëy si lislaam ndax xam-xam dem na damu damu la bu rëy si faydu bi ndaxte ku amoon ku xamoon yàlla dem na waaye damu damu la bu rëy si tariqa bi parce que ku xamoon tariqa bi te di ko jàngale te di nekk mu rab dem na dégg nga waaye lu tax yonent bi ne damu damu boobu noonu kenn du ko mën a fatt parce que borom xam-xam yu nekk dafa am fu ñu taxawee borom xam-xam nag bu nekk soo dee eh, su gaaño dégg nga barabam boobu beneen borom xam-xam mën na faa taxaw waaye na ba tey du tere keneen manqué na rek parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën xam si mbindeef yi ba mu demee am na yeneen borom borom xam-xam yu ñëw doon na ko waaye ba léegi barabu yonent bi sallallahu alayhi wa man ma ngi fa dara du ko fàtt صحابي نونو ينن تابعي نونو ينن علماء نونو اك شرفاء اك صالحون يي دنگا واي بونكال موري دمنا كو خامني واخ سي اثر جلي سي صلى الله عليه وسلم ني دنگا ما قبض الله عالما الا كان ظهرة في الاسلام لا تصد نينا يلا du ngëpp borom xam-xam jël ko lu mooy lislaam am na benn bënn bënd bi nga xam ne dara du ko fat di la yeneen borom xam-xam yi ñëw nañ mais du du tere barab boobu nag moom dara manqué na fa rek dégg nga géej na waaye ay mujalladaat dem na waaye ku xamoon dem na ku baaxoon dem na يلا واخنا سي حقمنا ولا ينتبه واخنا سي حقمنا ان الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه منهم بعد اذ اعطى هموه ولكن بقبض العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا يستفتونهم فيفتون بغير علم فيضلون وي yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne du nocc xam-xam jël ko si mbindeef yi ginnaaw bam leen ko joxee ba pare parce que yàlla ku baax la du maye di nangu waaye borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la joxoon xam-xam lay faat jëlee leen fi su leen fi jëlee ñoom ñoo mënoon a leeral xam-xam yàlla jële leen fi léegi du des lu mooy ñu réer xamuñ dara di wote yoo xam-xam ñooñu nag lay nit ñi jël def leen seen njiit nit ñi di leen di laaj ñoom ñi tontu nit ñi si xam-xam dégg nga ne dañuy tontu nit ñi si xam-xam te xamuñ dara réeral nit ñi réeral seen bopp tey kenn si borom xam-xam yooyu yonent bi junj ne yàlla dana leen jël jëlaale xam-xam kenn dem na si kon duñ def dara lu dul tiit. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne mi ngi fi woon ba ko yàlla jëlee tiituñ lu dut lam ànd ak si xam-xam ak neex ak wéttal gum nekkoon ak ñun tey kenn si ñu ko donnoon ñoo dem moo dem tiituñ jooyuñ lu dut xam-xam bu mu yóbbaale ak mbaax bu mu yóbbaale waaye ak xikma bu mu yóbbaale ak irfaan bu yóbbaale ak ak wéttal gum nekkoon ak ñun diñuy gindi di ñuy xamal loolu tiit nañ si tiit nañ tamit si xadis boobu nga xam ne yonent bi waxoon na ko ñu wax ko sànq gis nañ ko si Oustaz Ahmed Ba parce que kenn si ñoom dem na ku dem na koo xam ne koo xam ne kenn la si ñu téyewoon diine ci ku rëy dem na koo xam ne sikki sàkkuñ si wilaayam sikki sàkkuñ si mbëggeel gu mu bëgg yàlla ak mbëggeel gu ko yàlla bëgg ak mbëggeel gu ko yonent bi bëgg ak moom mbëggeel gu mu bëgg yonent bi ak mbëggeel gu mu bëgg Seydina Cheikh ak si Seydina Cheikh mbëggeel gu ko bëgg ak mbëggeel gu mu bëgg sëriñam Maolana Cheikh Ibrahim Niass ak mbëggeel gu ko Maolana Cheikh Ibrahim Niass bëgg mbëggeel gi am na ñinga nga xam ne dañ koy xam si almukashifa yalla mo len ko way won karima ne ki beug naa ko waaye am ñi nga xamne yeguñ ci ci si daraja boobu fenn rek lañ mëna xamé mbeugël gi moy ki ni jullit ñi bëgg guñ ko bëgg ak lu mi liggéeyalee diine ji ak sellu gum sell ci li ñi xamé ki yalla bëgg nako ak wali yi bëgg nañ ko parce que yalla su bëggé bëggee doomu da fay wo jibril nako diw bëgg nako jibril woo waa asamaan ak waa suuf naleen leen yàlla bëgg na diw bëgg leen ko su boobaa kooku kenn du ko bëgg lurut ñu baax ñi waaye ñu bon ñi rek koy euh, bañ te duñ ko bañee lurut seen bon ga waaye nag moom xam nañ ne kii ku baax la kii nag di oustaz Ahmed Ba dem na waaye kuñ xamoon ne ne yàlla bëgg na ko si liñ ko xamee mooy si euh, diine gum génnee àddina ak si tariqa gum génnee àddina ak si faydu bii mu génne àddina ak gindi gu mu gindi nit ñi ak nit ñi bëgg guñ ko bëggoon ak moom bëgg gum bëgg jullit ñi ak bëgg gum bëgg yàlla ak bëgg gu ko ak bëgg gum bëgg sëriñam Seydina ak bëgg gum bëgg sëriñam euh, Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu parce que yàlla kenn du ko bëgg di ko jëfee mu ñàkk laa bëgg parce que moom <coughs> dégg nga soo ko lebalee lu baax dalay fay ful bi te mom mën nañoo sédina ku bëgg yalla kum ko nak bëgg na yalla yalla bëgg nako ko nga kon koku dem na waye mi ngi démé ci at yi nga xamné at yu neew la at yu bari la at yu neew la si ki nga xamné ci si fukki at ak lu tek tuuti juroom fukki at ak ben ci la génné adina di at yi nga xam ne nit dana ko am dundaat lu tol noonu doog a doog a àddina di at yi nga xam ne nit dana ko am dundaat lu jege loolu doog a génn àddina nga xam ne yonent yi sax ñu si bari romb nañ at mu yooyu di dem ñu ko si ku ko si ñu ko si romb tuuti la da dañ leen di waaye di at yu bari parce que lan tasaare na fi loo xam ne fii ba bis penci ila yawmil qiyaamati du dagg nit dundi junni at nit dund na lu jege téeméeri at te deful lu tol noonu waaye nag dama wax ne loolu mooy aadaay borom xam-xam yi di aadaay yonent yi aadaay borom xam-xam yi ñoom yàlla moo leen gën lu ne aadaay yonent yi yàlla moo leen gën lu ne te àddina bii nga xam ne comme nuñ ko jàngee woon rek ne koso ne kosooy jullit la waaye ajjanaay ku gëmul yàlla la ñoom àddina boobu gënalul leen fan moo leen gënal mooy àllaaxira bee nga xam ne ajjanaay jullit la waaye koso la si ku gëmul yàlla kon nag ñoom nekk guñ nekk fii nii ñak pexé rek léne yalla mo leen fi tek il faut ñu ñu liggéeyal ko mais su ndogal ak yalla ñëwé na ñom dañuy gëna dina ñom dañ koy santé yalla parce que ñi ngi dem si ko xamné ku tabé la si ko xamné dénga seen xarit la si ko xamné na def leen téral teral si xamné xam ne la si foo xamné amu dara lu dut bànneex ñom fofu mo leen gënal si adina bi nga xamné chaque jour ñi ngi wax kenn du dégg chaque jour ñi ngi gis ay moy yalla chaque jour ñi ñang leen seen jëf yi bon lu tax ma ne aadaay borom xam-xam ne ñoom dañ teel a génn àddina suñ teelatoo génn àddina ba tey seen diir su ñëwee man seen app su ñëwee ñoom duñ si naqaru dara dégg nga naq naq àddina borom xam-xam teel a gaañu yàgg nañ kaa gis ma jox la si ñaari misaal rek kii di al imam al shafii ba muy gaañu mi ngi am juróom fukki at ak ñett kon moom lum imaam oustaz Ahmed moo ko njëkk a gaañu lu toll ni ñaari at waaye tasaare na fi loo xam ne nit dund na fi ay junni at tasaare wut ko si lan tasaare na fi usulul fiq nga xam ne si moom la jugee tasaare na fi ab ngir goo xam ne. dégg nga sharqan wa garban ñu ngi ko fay jàng kii di al imam annawawi yaxya ibnu sharafiddin ba muy gaañu mi ngi am ñeent fukki at ak ñeent nga xam ne sax moom moo njëkk a gaañu ba muy gaañu lu ndaw la kooku taalif na fi ay ay téere lii di al arbaun annawawi moo ko taalif sharhana sahihul Bukhari dégg nga moo def Riyadu Salihin nekk kàngam gu ñëpp ràññee si xam-xam ba muy gaañu ñeent fukki at ak ñeent la am kon aadaay borom xam-xam ñoom dañuy dund lu néew waaye dañuy dund lu bëri dañuy dund lu néew mooy lan seen at yi ku koy continuer gaañu at yu néew lay doon waaye nag dañuy dund at yu bëri mooy lañ dund lañ tasaare nit dana fi dund téeméeri at te du ko mën a tasaare. radiyallahu anhum ajmain kooku nag <clears throat> di Oustaz Ahmed tey moo ñu manqué koo xam ne moo doon gindi si xam-xam si xam-xamam lañ laan déglu si xam-xamam lañ laan kontaanee waaye si mbaaxam lañ laan roy waaye si lewetam lañ laan kool si taalibayam lañ laan sóobu kooku tey moo dem bàyyi si dem dem si demin bi nga xam ne nit taxawoon nga suñ la waxoon ne kii at bii lay dem doo ko gëm da ngay yaakaar ne dana fi dund at yu dul jeex doo ko dem dégg nga ndax cofeel gu amoon si moom ak mbëggeel gu amoon si ak xam-xam gu nekkoon si moom waaye jaam ak yaakaaram jaam ak pexeem yàlla ak dogalam duñ def dara lu dul ñaanal ko yàlla yàlla teeru ko ci bi teeru ko serinyam sidina ahmad tijan Abul Abbas teruko serinyam Maulana syekh Ibrahim nyas Abu Ishaq teruko mbolem mboolem julli ñi awliya wi ak anbiya wi ak sharafa wi teruko teruko si Sen daraja ñom ak mom si ah, xam xam gu mu am ak si daraja gum am fa yalla yalla jéggal ko yalla ko yalla top dara yalla ko yalla jéggal mbolem recc recc yalla ko yalla fulal ay tiyabam ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne ñoy famem di ay mbokam ñu ngi leen di jaale di wax ne yal na leen yàlla kutulal yal na leen yàlla mislo yal na leen yàlla muñlo yal na leen yàlla jox yiw waye ñi nga xamne ñoy ay mbok taalibayam ci diina ji ak ci tariqa bi ak ci faydu bi ñu ngi leen di jaale si kenn ku rëy ponkal kenn ponk gi nga xam ne wàññeeku na si ñoom di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla may xolu muñ dégg nga yàlla wuutal kuutal fi ay boromi xam-xam boromi xam-xam di la sax moom place bum mu taxawee kenn ko fat waaye nag yàlla dekkilaat ñeneen ñi nga xam ne danañ mën a joxe kam kam comme nu mu yellee si daraja rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moo tax comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal màggaayu borom xam-xam moo ñu jàngal deewu borom xam-xam nu mu méttee ak nu mu fooree deewu borom xam-xam nu mu rëyee te borom xam-xam deena jullit deena dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettalu ko maanaam jooy ñun nag duñ def lu dul roy si moom. موتوخ ني بيندي اب مارسيا اب قصيده دي سي جالي استاذ احمد ديكو نيان يالا دي واخ توتي سي جالوريم دي وني نيكو ماغ ديمنا ما واخون ني <coughs> مرثية للعلامة الدراكة أستاذ أحمد به نبك الزمان على فقدان عمدته يا ظلمة حدثت لموت غرته بكت بحار وأهل الأرض قاطبة حتى بكى من بكى في الكون جملته يا غربة العلم لما مات قائدنا قطب الرحى كاشف الأسى لقوته شمس المعارف من فاضت معارفه شرقا وغربا بلا شك لعزته حبر من الشرع طوض شامخ جمع البحرين ذوقا عميقا ذا لهمته ساد الأنام بعلمه وخدمته حتى بدا نيرا لنا لبهجته مات الحليم وبات الحزن آيتنا والدمع منهمر لأجل رحلته أستاذ أحمد به أرسي للوعتنا والله آتيه رضوانا برحمته مات الحليف حليف الشيخ طالبه برهام أعني بلا وهم لفيضته إذا تحدث زال الجهل من خجل حتى أزال قلوب القوم من من شبه من شبه يجله حبه وخبه علنا لقربه حضرة المولى بخطوته لقد حوى ما حوى فنال مرتبة لله ما قلت في ريب ولا سفه كالبحر في موجه والصبر ديدنه والحق غايته إذا استعنت به والله أسأل أن تغشاه رحمته والشيخ كافله فوزا بحرمته على النبي وآله مدى الزمن أزكى سلامان دائما برحمته على التجاني مع الأصحاب جملتهم حماية الحق من أعداء بسطوته من مرسية لأب مرسية ab marsiya la dina allaama ñeel borom xam-xam mooy jotukaayu bépp fann oustaz Ahmed Ba ne baka jooy na azzamaanu jamono ala fuqdaani umdatihi si ñàkk kenn si kenoom yi yaa hulmatan e woona ab dammu-damm boo xam ne xadasat xew na si diine ji li mawti gurratihi ngir <coughs> deyak sangam ba mene jamono de joyna na mu joy ndax ñak kenn si ñi nga xamne dañ ko lon degeural si xam-xam waye ab damu-damu bu reey xew na si diine ji ngir sang bi nga xamne gañu na na maadaama bon xam-xam su gaañoo ñeppay joy kon jamono jooy na kon mën ngaa wax ne baka zamanu bi maana baka ahlu zamani ñooñ jamono jooy nañ ñu baax ñi jooy nañ xatta asamaau asamaan si jooy na parce que julli sax su dee asamaan dana ko jooy sagantumaa nag borom xam-xam boo xam ne julli la kii nag yelloo na asamaan jooy ko bakat jooy na bixaarun ay géej wa ahlul ardi ak waa suuf si xaatibatan mboolem seen xataa baka ba jooy man baka ka jooy fil kawni si nekk gi jumlatihi mboolem seen rabu géej yaa géej yi yëpp jooy nañ ndax deeg sang bi waa suuf ñëpp jooy nañ ndax deeg sangi bi ba mboolem lu yàlla bindi malaaka yaa yëpp jooy nga képp ki nga xam ne yàlla bind na bind na la jooy nga ma nga wax wala boog ñu si ëpp jooy nañ parce que jullit ñi rek gëmuñu yàlla malaaka yi nit ñi rek gëmuñu yàlla malaaka yi si ñu gëm yàlla lañ bokk rabi àll yi jamaadaat yëpp si si ñu gëm yàlla lañ bokk maadaama jullit yaa ngi jooy nit ñaa ngi jooy malaaka yaa ngi jooy kon waaye jamaadaat yaa ngi jooy kon mën nañu wax ne kon kaw nu bi yëpp ngi jooy yaa gurbatal ilmi hoona tumuranke xam-xam lamma maata bam gaañoo qaiduna suñi njiit bi xutbu raha koo xam ne mooloon mooloon njiitu machine bi mooloon yëngat mooloon yëngat machine bi kaashiful asa ki nga xam ne mooy wuññi njaqare yi li quwwatihi ngir kattanam sa xam-xam way woonaatum ranke xam-xam ndaxte ton bu rëy dem na si xam-xam ay mujalladaat ay téere téere dem na démb maa ngi julli takkusaan ba sujjóot rek kalaat ne jamono ji may julli ñu ngi rob Oustaz Ahmed ñu ngi koy rob ñu ngi yóbbaale ay mujalladaat ay téere ñu ngi yóbbaale ay irfaan ñu ngi yóbbaale ak mbaax ndax si comme làq kooku lañ suul ma ne cey ndeysaan ñu ñun waa àddina ñoo gën a ñàkk sens parce que ñu kàccoor ñi ñoo fi gën di des chaque jour borom xam-xam yaa ngi dem te ku baax rek da dem yóbbaale lu bëri sa xam-xam ñun nag ñu ngi fi tumuranke bay bu a dee keroog loolu laa xalaat ma ne nag kon nag yaa gurbatal ilmi woo naa tumuraanke xam-xam ndax keroot lañ suulaale lu tax ma ne xam-xam tumuraanke na parce que kañu jiite woon si xam-xam ñun ñun ñu naw ko lool naw xam-xamam naw jëflanteem si xam-xam kooku dem na ki nga xam ne bu nekke borom xam-xam yi ñi yëngu si xam-xam taxaw nañ moom moo leen jiite parce que moom moo yëngal machine bi koo xam ne suñ tiitee si xam-xam ba xamuñ masala si moom la ñuy dellu mu wuñuñ ci suñ njàqare ngir ndëggoom si xam-xam ak kàttanam si xam-xam ma ne chamsul maarif yi janti maarifa yi moom mooy jantab maarifa parce que ku si amul ndëggu la su jëfee nga xam ne kii borom maarifa su waxee la su waxee nga xam ne kii borom maarifa معرفة جو خان معرفة جو متسكلة سي جيف أك سي معرفة دفع أمون معرفة بمت سي وهم دفع أمون معرفة بمت سي جيفهم معرفة بمت لأمون سي وهم ميلان دفع كم كم كم معرفة بفرق جهازك كم كم شريعة جو متسك waye daf loon jëfu jëfi daf loon jëf jëfi ku xam yàlla ànd ak di ko jëf jëfini ku xam sharia kon ñaar it la بانيس رضي الله عنه وخنا نسي آه، رياض الصالحين بيكون سي رياض التفسير اسف بانيس رضي الله عنه وخنا نسي رياض التفسير نه كان كي ماتوت موي كان موي كو يمسي شريعه كسي واي كنن كي ماتوت موي كان موي كو يمسي معرفه كسي كو مات موي كو دجي لا نياريب كان موي كو دجي لا نياريب موي كو خامني ميغي جيفي شريعه حقيقه oustaz Ahmed moom ñeent la dajale mooy dafa dajale sharia ak maarifa si jëf dajale sharia ak maarifa si xam moo tax soo nekkee ak moom mu jëf sharia boole ko ak xaqiqa nga xam ne kii ku mat la si wàllu jëf soo jàkkaarloog moom mu wax dana wax sharia buñ jaxaseeg xaqiqa nga xam ne kii ku mat la si wàllam wax si xam-xam باسكو بون خام خام بولا گنا مات موي كو خام معرفه كم شريعه جيف كات بولا گنا مات موي كي جيف شريعه جيف حقيقه كوكو نك مو ديم ماني شمس المعارف جنت معرفه اي من كي خامني فاضت ببنا معارفه اي آه، اي قمم كو خامني معرفه ام دافو ببو سي طالبي با غاي مربي القومي دينغا koo xam ne moo loon yar taalibe yi ba gars yi tuddee ko al ustaaz ñu bokk ak moom faydu bi ñëpp ko nangul ñu bokkut ak moom faydu bi ñëpp ko nangul ma ne chamsul maarif yi jant maarifa yi dem na man ki nga xam ne faadat bëbb na maarifuhu ay xam-xamam charqan si sox wa charqan si penku wa garban ak si sox bila shakkin si lu benn sikki sàkka لعزته غير دغرم لعزته غير تدم سي خم خم تد غم تد سي خم خم موكو ماي ليت حبر فود لا فود فود مو بروم خم بو مك من الشرع سي شريعه وخنا لا نلكو امون دغول سي معرفه موي شمس المعارف من فاضت معارفه شرقا وغربا بلا شك لعزته واي امون دغول سي شريعه موي لان حبر فود لون كانغام لون من الشرع سي شريعه بي waye taw dun la won shamikhun bu yëkkatiku te deugar jamaa la motax ma wax lolou mané nax jamaa dajale al albaxrayni ñaari géej marajal albaxrayni yaltaqiyan moy dafa dajale ñaari géej zawqan si mos amiqan bu qut zali ma wax amna ko li himmatihi ngir yitem dafa dajale ñaari géej bahru sharia wa bahru al haqiqa te bu si nek xamusi tout rek de dafa dem si charia xam si lu kóotu kóot kóot ànd ak mos dem si xaqiqa xam si lu kóotu kóot ndax yittim gu bari moom nettali nañu ne moom ku euh, ku mënoon a jàng la waaye ku gaaw a mokkal la ku yàgg sa xam-xam la saada sang na al anaami mindee fi saada mooy nekk na sang al anaama si kaw mindee fii bi ilmihi sa xam-xamam wa khidmatihi ak si liggéeyal faydu bi ak serignam ak liggéeyal yonent bi ak liggéeyal sayidina cheikh ay liggéeyal yalla hatta bada bam feñ nayran di aji leral lana ñeel ñu li bahjatihi ngir taram li bahjatihi ngir leram batay tey ahmad dama ne soo ko nga xamne ki kii sang la si mbindee fii sang la su waxe nga gis ak sangam su jëfee nga gis ak sangam su jàngalee nga gis ak sangam waaye su toogee nga xam ne kii kat sangu moo toog si ñaar la ko amee si xam-xam sharia ak xam-xam ak xam-xamu xaqiqa mi benn si xam-xam gum dajale xam-xamu sharia ak xaqiqa benn si la amee sang googu noonu ak si nekk taalibe gum nekk taalibe di liggéeyal faydu baak tariqa baak lislaam si la amee sangu googu ba amee loolu nag mujj nekk bidiw mujj nekk weer mujj nekk jant bi nga xam ne moo ñuy leeralal suñu yoon man gis naa koo xam ne nekku taalibe bay waaye toog na yenn weer yi nga xam ne am na benn soow Oustaz Oustaz Ahmed moom rek lay taal di déglu lu tax ne kii damaa neex lu tax wax wax ji muy wax damaa neex te nekku taalibe mi ngi noonu maata dee na alxalimu ku lawet wallahi ku lawet dem na wa baata mujj na alxusnu njàqare aayatana di suñu mandarga koo si xool rek Mandar gaak njaqare mi ngi feeñ ci mom wallahi So gisee dejeem bi nga xamne ne jaq nañ serigne yaag talibe yaag mbokk yi ñep jaq nañ nax ku dem mata deena halim ku lamet wa bata mujuna al huzn njaqare ayatana di suñu mandarga wa damu ronk sama ronkañ munhamirun ajib dot la li ajli rihlatihi ngir dem gum dem ngir laxas gum laxas ku lewet dem na ba ko si xol gis ni ngi jàq waye nak sama ronko yaangi ngi ronko ronkoñ wali yi ngi ngi ronko ronkoñ ba ronkoñ yaangi ngi ronko ronkoñ taalibe yaangi ngi ronko ronkoñ asaman ak suuf yaangi ngir dem gum dem ustaz Ahmed Ba mom mo dem arsi mom lay marsiya li lawatina ngir suñu njaqare wallahi njaqare motax ñi wax wallahu yalla atihi aji dikke lako yalla nako dikke ridwanan ak mané bi rahmatihi sir yërmande yalla nako yalla dik ngeur ngërmande gu mat sëg gu andak yir mande Yalla bokku bokk ñi nga xam yalla da fay wax ne يلا وهنا سين حقا رضي الله عنهم ورضوا عنه يلا قرمنا لين يوم نقرم يلا يلا بوكو سني قمنا يلا وهنا سين حقنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te di ko topp ëllëg te la chaque ne si loolu la bokk parce que yàlla won nañu ko ci dëjëm yàlla won nañu ko ci dundam mata deene al alxalifu xarit ga xalifu shaykh te moy qaritu serigne ba xaritu maulana cheikh ibrahima ñes la woon parce que ba ñes radiallahu anhu moo waxoon ne wa man yuhibu nii wa fi jannati alxuldi bila buhtaanin ne ku ma bëgg wala mu gis ma si ajjanaay béel si lay dugg sax fa te loolu nekkut naxeel nekkul nar bàyyi ñes lum namm si euh, si bayti boobu képp ki nga xam ne gis na ma maqaamam gis lu ko yàlla may nga topp ko sa di jëf lam lan jëf teg tànkam fa mu tegoon tànkam yow da nga dugg àjjana gu moom moom àjjana gu muy dugg da nga fa dugg parce que jëfam nga jëf parce que borom bayti bi waxoon na ne euh, law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna al muhibba liman yuhibbu mutiun sa mbëggeel sa mbëggeel gooy woote ne da nga kaa bëgg sa soppi bu bu nekkoon ne dëgg la da koy topp sa lam nekkoon parce que képp ku bëgg da ngay topp sa soppe lam bëgg képp ku bëgg rek képp ku bëgg nit da ngay bëgg lam bëgg soo bëggee bàyyi da ngay nekkoon si lu mu nekk da ngay jëfoon lam loon jëf da ngay gis la muy gis da ngay waxee ni mu loon waxee da ngay doxee ni mu loon doxee moom nag bëgg na bàyyi lu tax parce que tànk yu bàyyi nekkoon si xam-xam ak si jëf si la nekkoon kon mu mën nañoo wax ne moom dëggul maanaam dugg na si ñu bàyyi wax ne wa man yuhibbu nii wa yaraani moo tax kon ma ne xaritam la parce que la chaque ne baay doo ko bëgg jaar si fu jaar moom mu ñàkk laa bëgg comme que ne moom bëgg na bàyyi ba jaar fu bàyyi jaar kon bàyyi bëgg na ko te su ko bàyyi bëggutoon du ko def muqaddam bi nga xam ne ñëpp ko ràññee si yoonam bi ni su ko bàyyi bëggutoon yi nga xam ne ñoo doon ñoo ko doon duñ ko teg fi nga xam ne kawe na lool ba su fi nekkoon zahiran dégg nga noonu lay jëflante ak moom gis nañ ne xalifa bu fi jaar nga jamono xanteeg moom rek da nga jëflanteeg moom jëflante bi nga xam ne jëflante bu ñëpp naw la ngir kaweem ngir xam-xamam ngir ndëggoom fa yàlla moo tax ma ne maata deena alxalifu xarit ba xalifu cheikh te mooy xaritu sëriñ ba taalibuhu di taalibayam taalibayam dëgg lan mooy taalibayam parce Baay radiyallahu anhu moo wax ne taalibe moo gën a jafe kibritul ahmar parce que charte yi yi mu taaj pour nga nekk taalibe dafa bëri yow da nga da nga jëfe sharia jëfe xaqiqa te doo xam yàlla ba pare tourné di jëf jëfi ku xamul yàlla doo ko doo nekk taalibeem ba pare di ñàkkee teggin kenn doo doo nekk taalibeem doo nekk taalibeem ba pare di jëfi jëfi ku rekkeeku te Oustaz Ahmed loolu yëpp mucc na si بام سي موتي با باري تاكسي قمقم قمر سك شريعه تاكسي قمقم قمر سك كما حقيقه تاكسي تجي فلان تبو رفيق كون كوكو تالي بيما كم موي تالي بيما موي كيغا خامني دجال دجال انا لي ما واخ ييب سي جي فلان اه يو ياغي دوغو نيك سما تالي بي نال المنى من قد اتاني اولا واخرا يا اخرا يا اولا موي كيغا خامني dikkal na ma moo xam mu dikkal ma sama njël benn mbir wala sa mujj ga ñoom ñëpp jot nañ seen bébét waaye kañ la ñuy jot seen bébét nekk sama taale bi mooy suñ defee charte yi ma la wax Oustaz Ahmed nag seet nañ ne kon moom jot na mbébétam parce que lu bàyyi waxoon pour nga nekk taalibeem nekk na sax kon taalibeem bal muqaddam na charta muqaddam yi dajee na si moom charta cheikh dajee na si moom dégg nga lépp dajee na si moom parce que bàyyi dafa ne تان السرين بقم يلا خبيرا ناسحا كاملا العرفان اماما صالحا دبدا جن اسمه ما تدين الحليف قريب دو حليف الشيخ تمو قريب السرين بطالب طالبه دي طالب برهام برهام يس اعني لا نم سرين بلا وهم من سدود بين دفي مو سدود بين جمته دي فيضته غير فيضام خلي تملا xaritam googu nag tey moo gënaatin yàlla na ko teeru ida taxaddata nem waxtaan na moom oustaz zaala dañ na aljahlu min xajalin si gàcca réer su muuroon mindeef yi dugg si xolu mindeef yi su oustaz Ahmed ba ñëwee rek waxtaanal ñu rek réer day mujj daw ndax gàcca ndaxte xam ne borom xam-xam bu rëy ñëw na weer ko xata azala ba day dindi xuluubal qawmi xolu nit ñi min shibahin si lënt lënt ba lënt lënt gu nekkoon si xolu nit ñi da koy dindi ngir xam-xamam yu da koy màggal xibbuhu soppeem wa xibbuhu ak noonam alanan si bëreel alanan si biral li qurbihi ngir jege gum jege xadaratal mawla péeb yàlla ba bi xudwatihi ay jéegoom ma ne <clears throat> képp ki nga xam ne soppeem nga da koy màggal ndax furaayam waaye képp ki nga xam ne noonam nga da nga koy màggal parce que mënoo kaa def lu dul màggal te da nga koy te da wane màgg te màggaayam lan moo tax ñu koy màggal ngir jege gum jege péeb yàlla bi si góorgóorloom si ay jéegoom parce que Seydina Cheikh radiyallahu anhu nee na mbir mi cër yàlla kenn du ko am si nank si góorgóorlu lañ koy amee moom nag góorgóorlu na ba am ko ànd ak ngëneel ak yàlla zalika fadlullahi yutihim man yasha ma ne laqad xawaa laq na maa xawaa lam laq fanala mu daal jot martabatan ak martaba bu bu kawé lillahi ngir yalla lay waxé lillahi si yalla lay géñ ma qultu waxuma fi raybin bin si ben sikki wala safihin du tiagen dese sa sax ma na lam laq sa xam-xam ba mujj am martaba limay wax rek limay wax ngir yalla motax makoy wax والله وخمس بين سكساكا ولا بوكس قلم مورو لقد حوا لقنا ما حوا لم لق ماجي دينغا نكرالا للتفخيم لما قال لنتل جروان لم لق رينا يعني لقد حوا ما شيئا عظيما تا غريال لله رك غريال ما تخ ماي وقت ما قلت وخما في ريب بين سكساك ولا سفه هندو تشاغن ديسه استاذ كل بحر كوم جيج في موجه سي سي دوسم جيج سو جاكرو جيج نم فيسي عندك اي فاغام نم مل نول الاستاذ احمد بامل سي خمخم والصبر مون ديدنه موي ا آه، ديدنه موي باخم سلام نيك موي سي دين الاسلام salam nek moy si faydu ñu bëree ngi taxaw diko ko si bidaa ngeen nekk si réer ngeen nekk si kere nga nek li ngeen nek nekk dëgg mom téré terewut gis nga ko si mbolam télé mu taxaw di défendre faydu mu taxaw di défendre l'islam mu taxaw di défendre tariqa and ak ngagne gu koy nit di si si lu nga nek nek dëgg wala da ngeen bida te te lolu taxul mu deltu ginnaw bal dafa muñ waxe nit ñi continue défendre gogou non batay yalla yàlla ko kon nak moom wa sabru muñ day danu hu mooy ñoo ñu nop kon koku si muñ la génne lu koy nit ñi di wax taxut mu deltu ginnaw si lim nek bal dafa gëna dem si kanam di nit ñi di gën a si der lu ñaaw mom mi ngi gën di wax lu baax ma ne kal baxri comme géej fi mawjihi si euh, duusam wa sabru muñ day danuhu mooy baaxam mbaaxam lu tax ma ne géej la waaye muñ kan la parce que géej dafa nekk ki nga xam ne dafa bëri ndox daal di am fulla géej soo ko fekkee fa nekk lay nekk palaasam boobu noonu lay nekk taxaw fa na deng waaye nag loo ko sànni si lu ñaaw si ay mbalit wala lu bon da koy génneewaat sa tefes ma sa sax Ahmed nag ma ne géej la lan moo tax mooy xam-xam lu gu fees dell nekk géej nekk sa lam nekk nag te muy diina l'islam ak tarixa bi ak faydu bi bu fekk kenn si lu ñaaw lam nekk bal sa lam nekk noonu lay nekk kom géej lu mu nekkee si palaasam moom noonu lay nekkee si euh, barabam géej dafa nekk géej géej dafa nekk géej ba pare taxaw fam doon maanaam taxaw fam nekk dëkk fa Oustaz Ahmad dafa nekk géej si dafa nekk géej si xam-xam ba pare nekk salam nekk te mooy diine lislaam ak tariqa bi faydu bi géej loo ko sànni si lu bon da koy génnewaat si tefes bi moom Oustaz Ahmad loo ko sànni si lu ñaaw dana ko dàqee ak xam-xam ak si muñ ak si tariqa ak si xikma kon géej la lu tax ma ne muñ kat la géej mën nga saa dugal lu nekk mën nga saa dugal lu nekk mooy mën nga saa dugal ay boto yu ngand ay gaal yu rëy du tere moom du mos a tawat sas Ahmad géej la ba pare waaye loo ko teg mu tegoo ko lu tax ma ne géej la géej lu mel noonu soo duggee si ron so duggé ci ron da fa fekk ay wurus yu dut jeex da fa fekk ay jeun yu reuy da fa fekk ay njëriñ yu dut jeex musa Ahmed so duggé ci biram fa fekk ay masala xam-xam ay mbax yu dut jeex kon geej la lu mané geej la geej mom lañu ñuy bi wax ne ndoxam lu lab la mané sa japp mané sa sangu waye timit middam moy lañ lañ faree ay jeun ak rabam lu dagana lekk la Oustaz Ahmed tamit jëmmam si boppam lu laab la waaye lay génnee si moom tamit lu sell la te laab kon géej la loolu moo tax ma jox ko melokaanu géej <laughs> lu tax ma ne géej la parce que géej da ngay dugg si moom jëriñu génnaat waaye doo ko fontoo soo ko naree fontoo lab si biir Oustaz Ahmed géej la lan moo tax parce que da ngay dugg si biiram nga jëriñu si xam-xamam ak si mbaaxam waaye soo ko naree fontoo yàlla moo lay duma si martabaam dégg kon tey géej na wal xaqu dëgg gaayatuhu mooy doytalu waayam wal xaqu yàlla gaayatuhu mooy doytalu waayam ida staanta soo dimbali ko loo bixii si moom bis boo ñëwee si moom pour mu dimbale la si alal si xam-xam ci tangga da nga xam ne yàlla rek moo ko tax a jóg dana la dimbale ba ba si fu dimbale yam ama soo ñëwee pour leneen safaan ba du la mën a dimbale parce que moom yoon bu mu jaar ak yow yoon jaar asalu lay ñaan an taxsha wu mu ko rahmatuhu yërëmandeg yàlla maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yërëmandeg yàlla mur, dikkal ko يلا نكون دري أنت خشى ومومور كديكل والشيخ سيدنا أحمد تجان كافله مايكوكا مايكوكا ورلو الأجنة أكبر من ديال أكبر من ديال بس كان نكنا نكنا في طريقة بين قمنا طريقة بريلا génn na génnee na àddina si tariqa bi nga xam ne tariqa bu am garanti la tariqa bu am ay mbégal la maanaam ay bégle tariqa boobu si la génne àddina parce que soo demee si kashf kii ni si kashful hijab bi bu أه، سيدي الحاج احمد سكيريجي التجاني من فاي وخني أه، سيدنا الشيخ نينا ان من اخذ وردنا ودام عليه الى الممات يدخل الجنه بغير حساب ولا عقاب هو ووالده وازواجه وذريته in salima al jamiu min al intiqad nee na képp ki nga xam ne jël na suñ tariqa bi sax si ba génn àddina moom si boppam dana dugg aljana moom waa jooju ay jabaram danañ dugg àjjana ay doomam danañ dugg àjjana ak njabootam waaye si charta ñooñu noonu mucc si dingat Seydina Cheikh moom nag seede nañ ne ku génn àddina si tariqa tijaan la kon su ma ne wa cheikhu na Ahmed Tijaan kaafiluhu mooy ko ko garantil kon si foofu lañ ko teg moo ko garantil lan fawzan texe bi xurmatihi si xurmaam si darajaay si si darajaay Seydina Cheikh bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko jox wirdo bi jox ko garanti yi ne ko jottali ma ko talibe yi si xurma googu noonu la ko Seydina Cheikh garanti leen سيدنا شيخ كفر وحنا آه، ينتبه صلى الله عليه وسلم آه. آه، وحنا سيدي ابن العربي الدمراوي التازي نكو لولا محبتك في تجاني ما رأيتني قط نكو بتاخدون بقل جو بغ سي سيدنا الشيخ دومو مسا غيس نتلي سيدنا الدمراوي دا فاي دالان غيس abdullah wi nettali na ko si kashif si kashful hijab sayidi ahmad sukayrij nee na abdullah wi nettali na ko nee na sayidi addamrawi dafa laan gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam si bis bi lu toll ni ñaar fukki yoon ak ñeent yonent bi sallallahu alayhi wasallam dénkaane sayidina cheikh na ko mu sonnee si demraawi parce que moom yonent bi ku bëgg demraawi la bëggeel gu ko yonent bi bëgg noonu yonent wax na ko ne ko gis goo may gis nii bëgg goo bëgg Seydina Cheikh moo tax kon Seydina Cheikh noonu la amee daraja comme nag moom Seydina Cheikh la bëggoon Seydina Cheikh la topp garantie yi ma la wax kon tabi na si kawam kon kay mën nañoo wax ne <coughs> kon koy mën nañoo wax ne wa cheikhu seex bi kaafiluhu mooy ku ko garanti fawzan texe bi xurmatihi si xormam kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla tàbbil yërmande si kawam ala nabi yàlla nekk si yonent bi wa alihi ak waa këram mada zamani dirab jamono azka salaamaani gën saa sell ak julleem julli yàlla ak xewlu yàlla daa iman ba faw bi rahmatihi si yërmandeem julleeg yàlla salmal ak yàlla yàlla nekk si yonent bi ak waa këram dirab jamono ala tijani yàlla nekk si sayidina ahmed tijane maal ashaabi ànd ak mboolem taliba yi ñoom sayidi damrawi ñoom Seydi dégg nga Abdullahi ñoom Seydi Ahmed Sukayri ji Sukayri ji ñoom Seydi dégg nga Ali Harazimi ñoom Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhum ñoom dégg nga Seydi Mohamed Al Habib ñoom Seydi Mohamed Al Kabir ñoom ñëpp mboolem kàngaam yi si tarixa bi yàlla na yàlla tabbil si ñoom Yermande, kon ala tijaan yal nek si sayyidina Ahmed Tijaan ma ala ashabi andak eh, de nga eh, sahaba yi jumlati manam andak ay sahabam jumlatihim wolam sen himayatul haqqi kaaraangeeg yalla min a'da'i yi si bi satwatihi si songo yalla, si katnu yalla nee eh, sayyidina Ahmed Tijaan ak ak sahabami yalna len yalla har na si bu bon de nga si non, yalla, fegal len ko si kàttanam ak si songam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 فقدان عمدته يا ظلمة حدثت لموت غرته بكت بحار وأهل الأرض قاطبة حتى بكى من بكى في الكون جملته يا غربة العلم لما مات قائدنا قطب الرحى كاشف الأسى لقوته شمس المعارف من فاضت معارفه شرقا وغربا بلا شك لعزته آه، حبر من الشرع طود شامخ جمع البحرين ذوقا عميقا ذا لهمته ساد الأنام بعلمه وخدمته حتى بدا نيرا لنا لبهجته مات الحليم وبات الحزن آيتنا والدمع منهمر لأجل رحلته أستاذ أحمد أرثي للوعتنا والله آتيه رضوانا برحمته مات الحليف حليف الشيخ طالبه برهام أعني بلا وهم لفيضته إذا تحدث زال الجهل من خجل حتى أزال قلوب القوم من شبه آه، يجله حبه وخبه علنا لقربه حضرة المولى بخطوته لقد حوى ما حوى فنال مرتبة لله ما قلت في ريب ولا سفه كالبحر في موجه والصبر ديدنه والحق غايته إذا استعنت به والله أسأل